jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax comme ni ñu leen koy defalee saa su ne eh, di leen siyaaraat eh, di dem ci kër ñi nga xamante ne ay champion lañ gëj na leen gis ci làmb tey nag dañu doxante ba tund bi nga xamante ni mooy tund Ngor. Euh, te boo ko tuddee tudd ay champion yoo xamante ni ay ndaanaan lañ ay mbëru làmb lañ ay champion yoo xamante ni euh, kenn du leen présenté ci làmb tey moo waral ñu dalal kii di Xeru Ngor numéro 2 ñoo seet si ko fii euh, ngir waxtaan ak moom depuis bi mu génnee ci sorteem digganteem ak jaat boo yëmbal ba tey Euh, déggatuñu benn information ci moom xamatuñu fan la nekk waaye bi ma ñëwee dama ko gis mu mu mel ni ku yokk état bi loolu yëpp dinañ ci waxtaan euh, waxtaan ci xeeru ngor numéro 2 euh, gëj a gise beeg entraînement yeeg Covid 19 bi nan la ko dundee champion maa lay nuyu. waaw maa lay fay baa Djili di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu taala di ñaan yàlla yokk ay leeram taas ñu si barkeem di nuyu waa Ngor gépp ah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gépp képp kuy bëggee xeeru Ngor numéro 2 rek maa lay bëggee di la nuyu ah. Covid bi noo ko dundee. waaw comme ni ko ñëpp dundee ah waaw di moytu rek comme ni ñu gaa yi waxee ñu moytu waaw moytu nañ xama te tamit sensibiliser si nga ñi nga xam te nañ ñoo jege pour ñu moytu waaw ba yàlla def na fi ñu toll nii mu ngi wàññeeku ñu ngi ñaan yàlla yàlla tey koo xama nekk mën a nekkaat activité daal. wala ñuy ñaan yàlla suñ borom. moment wu couvre-feu bi est-ce waa Ngor surtout yéen daan ngeen tëdd vingt heures. waaw tëdd vingt bi nag daan nañ dugg suñuy néeg vingt heures mais daawuñu tëdd parce que xama rek boo tàmmee di toog ak gars yi di jàppise xama ba benn heure bi ñu bëgg ñëw rek nga bëgg a tëdd vingt heures day metti doon nañ dugg vingt heures suñu kër yi nag mais dañ daan toog teg suñu caayin ba benn heure bi après ñu daloo dallu quoi. Euh, ci jamono jooju euh, séance entrainement yi nan la daan demee. waaw séance yi nag instant boobu noonu benn séance rek lañ doon def waaw dañ doon dem 17 heures maa yi 18 heures et demi yooyu ñu ñibbise waaw bu ñu sangoo jël li lekk ànd ak moom dugub te ju daal waaw jëmale suba incha allah. mais état bi dama gis ni dafa yokk par rapport ak bi ma la mujjee gis. waaw sant yàlla rek xam nga ñun moom ay xale lañ nekk ci yoon. waaw làmb yaakaar ñu ngor yaakaar ñu ñu doon vedette boo xamante ne tey ci ngor mënoo benn vedette te tuddoo ñu kon chaque jour dañu war a nekk ci liggéey bi rek état bi du dara lu dul liggéey xel mu dal nekk xale am ñu nekk suñu ginnaaw du ñu jàppale loolu rek moo waral lii daal. Euh, depuis sa sortie yaag boo yëmbal ba tey euh, daanaka ñu bari ci làmb euh, xam naa ni activités yi lu bëree bëree bëri ci làmb bokk na ci lu taxaw ndax feebar bi mais depuis boobu avant combat après combat bi ñu ngi doon dégg sa komba wala yu mel noonu te saison bi dafa mel ni waajoon nga ci bëriwaat yeneen combat combat yooyu fu mu toll. waaw doon nañ wax suñuy combat parce que bu du woon Covid bi xam naa instant yi bëriwaat nañ bu yàgg mais tamit loolu la yàlla namoon mo doonoon li gën ci ñëpp. waaw yàlla nañ ko yàlla teggi xam nga ku nekk nekkat sa activité mais teewul combat yi ñu doon wax instant nii ñu ngi si combat nii suñu combat taxaw na ñu nag booy Diop booy Diop bu waaw bu Birahim Ndiaye ñaan yàlla suturaal ñu defal ñu ci ndam ñu continuer suñu yoon daal Boy Diop moo mujjee bëreeg anti waaw moom mujjee bëreeg anti hmm, lu ci amoon ndam wala defet defet la ci amoon léegi nga ñëw bëgg koo delloowaat ci defet boobu mu toll est-ce que dina mën a nekk waaw xam nga àdduna rien n'est impossible tout ce qui possible hmm. te ñun ay tout tànk lañ nekk ci yoon ñun xooluñu ci moom lu mu jóge ñun ci liñ jëm la ñuy xool te dañu bëgg dem ci ndam te incha allahu rabbi ñu ngi liggéey lu ñu war a mën a yóbbu ci ndam te bu soobee yàlla bis baa bu ñëwee summeeku ku ñu xool dina xam ne kii ñëwul pour caaxaan dafa am lu ma am si làmb am loo xam te ne dama ko si moom te il faut ma jël ko te pour ma jël ko du naxante mooy tax ma jël ko dama war a liggéey pour jël ko loolu laa naan la léegi que dama daan am combat di entraîner su amul combat may toog di nooyal mais ma demee ba gis ne làmb mu may commencé jox cër maa am benn niveau bi ma ne nag dama war a liggéey loolu moo waral tey nga gis ñu mel ni nañ mel nii. léegi depuis boobu ba tey say séance entraînement yi ñaata jour ngay entraîné par jour. chaque jour damay entraîné sauf samedi ak dimanche te chaque jour lundi mercredi damay yeewu matin yeneen jours yi laay def mais lundi ak mercredi damay yeewu matinal comme que hivernal lañ toll da ngay ménager ñaari quoi hmm. waaw ngoon gi moom chaque jour damay dem entraînement samedi ak dimanche laa dul entraîné. mais saison bi fi mu toll nii daa mel ni euh, li euh, li li père Max Mbargane doon wax naan mbër mu ndaw du préparé wu day pare saison bi moom daanaka xam naa ne du yàgg tuuti ci ci ay fii ak ay ay fan dinañ dinañ tëgg seen combat euh, yow est-ce que tey fi mu toll nii sa combat boobu nga xam ni taxaw na sa diggante ak Boy Diop buñ la woo ne la benn dimanche jàpp nañ ko ci rek pare man de yàlla xam na ne bi di ñëw nii nii nii tey la dimanche ñu ne dimanche pare naa. non loolu mënul nekk xeer barke Cheikhou Tidiane pare naa parce que man xale laa defuma dara man liggéeyuma aw ma liggéey doon naa liggéey sécurité mais instant yi nii ka ma doon liggéeyal ci boobaa moo ne ma demal nga toog ma fayal la salle musculation ngay entraîné instant yi daf ma fayal salle pour may entraîné kon entraîné kese moo ma war. moo waral nga yokk état yee moo waral ma yokk état bi nii te ñun ay xale lañ. ñun luñ état bi est-ce que état bu naturel la est boole woo ci ay anabolisant man de yàlla xam na ne Baye Niass laa yaakaar ma ko wàcc ci ay caaxaan barke Baye Niass mo bi ma dalee bëree ba léegi mosuma naan bi ma dalee bëree ba tay jii fi ma toog mosuma naan protéine entraîné laa xam barke Cheikhou Tidiane aw aw sax jotam. mais protéine baax na ci na. waaw xam nga ku dul naan protéine du naan ay ay leneen ay doom yeneen ñun ay xale lañ man jàpp naa lépp lu ma teg sama yaram lu ma bëgg am mën naa ko am parce que xale bu tuuti laa su ma la waxee samay at da nga naan déedéet. ba naa ne 23 avril 1993. <laughs> mbëri daal ñoo neex mbër daal koo ci laaj. bu lee la 93 94 97. xam nga man su may wax dara te mu nekk xam xamante ne nekkul dëgg am na ñu may seetaan. non non 93 moom ndaw na moom. yokkatu barke Baye Niass du ma ko wàcc ay caaxaan. barke Cheikhou Tidiane le 23 avril 1993 laa judd. ngor maa ci gën a nekk tuut tànk à part Siteu bu ngor ak Fëgala ak Ibou Diop mii maanaam jëmm ji moo dem nii rek gaa yaakaar ne mooy loolu mais billaahi wallaahi bu may dugg ci bë bëri maanaam damaa teel a bëre. nga def ci ñaata combat. def naa douze combat. ñaata victoire. huit ñaata défaite. quatre kan ak kan la daan. deux Ziga moom a daan. deux Ziga meen bu père Birahim Ndiaye. Birahim ak euh, Bébé Saloum aussi bu Birahim. Bébé Saloum yow. turu Birahim ñu jege Birahim moo tax ma ne la instant dafa am lu ñu ma amel. ak kan. ak si yàlla si papa Yadda yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. waaw ak euh, kii mu tuddati Sidi Diamaguène. fii di jàmm gën waaw ñooñu ñoo ma daan nga mujjee bëreeg uh, boo yëmbal boo yëmbal laa mujjee bëre keroog ba ngay génn ci làmb ji indi woon yóbbu woon ndam waaye ba nga demee après mujjee nañ laa jox sa ndam waaw jox nañ ma ndam li ma sante ko yàlla rek continuer sama semé te yaakaar naa ndam li doonu loo xamante ne lu rëy la si ñun parce que li ñu bëggagum ci làmb loolu moo ci gën a ndaw ndam loolu noonu léegi mel li ma jaaxal mooy da nga dugg écurie Père Birahim Ndiaye ñaari yoon mhm, waaw ñu daan la fa ñaari yoon waaw nga duggaat fa waaw parce que xam nga ni tey bii yoon dugg bi nga fiy dugg ak yeneen dugg nii war naa mën a changer ci sa carrière parce que écrit boo dugg ñaari yoon ñaar yëpp nga am fa defet tourné waat jëlaat fa mbër moo xamante ne dafa nekk ci defet dina doon loo xam ne day métti ci yow da xeeru nga. waaw xam nga deux gars bi may daan ma daa mel ni dañ laa xam. deux gars may daan maa ngi tegle woon deux defet mu daan na ma tegle trois defet. Ah. Bébé Saloum bi may daan boobu maa ngi tegle trois trois combats trois victoires daanoo ko moom njëkk a daan. ji bi neex na de. kon li ma jël man xam naa ne tax ma jël ko te dafa def sorti moom Boy Diop am lu mu wax. mu ne moom moo ne woon deux Giga rakkaam na ma jël daan ma. kon moom xam na li ko war ci combat bi comme que am la wax mu jël ma daan ma man ak moom na ma daan. non avance bi mu jël moom gëm na ni bu arbitre ne prix boo taxawee reculer woo Boy Diop dina la dóor ba nga dellu sa ginnaaw. waaw xam nga ku wax feeñ man dafa am benn affaire boo xamante ne dama koy doxe mooy lan. maanaam li ma gëm laa xam lu waay gëm moom la moom su ko neexee mu wax li mu santir wala li mu gëm mais man gëm naa ne bu arbitre bi sifflé bu xeex di am maay xeex bu bëri di am maay bëri parce que maa ko daax xeex maa ko daax a bëri. combat boobu euh, grand combat la wala combat spécial. grand combat la. kan moo tëgg combat boobu. Ama Events. Ama Events moo ko tëgg. waaw mu doon combat boo xamante ni sa diggante ak Boy Diop Boy Diop combat bi mujjee bëre xeex ak bëre lan la ci gën a mën. non Boy Diop ñun jàngat nañ ko xam nañ ne peut-être am na ñu jàng ci moom mais xam nga nit mënu ko mënoo ko xam ba mu jeexal. lan la gën a lan la xaw gën a mën a tuuti loo xam ne. bëre daal la gën a mën ka xeex. loolu moom xam naa ko. du ma ne mënu ko mais daal bari laa gën a gis ne moom la gën a mën. combat yu bari kon xeex bi bëri bi lay gën a privilégié. waaw parce que waaw parce que xam nga écrit Birahim Ndiaye ku leen xam-xam ne ay ndaanaan lañ. Hmm. père Birahim ko ko xam-xam ne ndaanaan la ku fa nekk moom da ngay mën a bëre si nii wal si nale mais ñun tamit kenn rawuñu parce que Ibou Diop mooy suñu entraîneur Ibou Diop ko ko xamul dégg nga ko waaw kon ñun tamit demuñu kenn demul bàyyi ñu waaw. léegi yéen ñaar euh, sa diggante yow ak booy Diop parce que boobu faw ñu taxaw seetlu ci parce que Boy Diop dafa mel ni euh, daf la booleeg rakkam ni ko jël ko dam koy daan rakk ji jël ko moom mu jóge ci défaite est-ce du yow danga nga daa jàpp ni yow da ngaa nooy combat arrangement la dalay lay jéggi la jàll dem seeti leneen moo tax mu jël la te xeeru ngor yow tamit sa combat bi passé sa diggante ak boo yëmbal liñ doon xaar ci yow gisuñu ko ci yow. waaw xam nga ñun ay tu tànk lañ moom su ko neexee mu jàpp ko neex mais bu doon lu xalaat ci xelam rek loolu mooy am kon kenn du sonn parce que ku nekk yaa ngi xëy saa yoo xëy yaa loo xamante ne da ngaa jàpp ne moo gën ci yow moo war a am am leneen ay am bu ko neexee mu jàpp ne moom man su ko neexee mu jàpp ne combat bu nooy la mais man mi mu war a bëral man xam naa li ma bés bi jaral te su ma toogee di ko wax du am sens parce que fu jëf am wax amu fa solo. dañuy bàyyi ba jëf jot. bu mu waree jëf. moom dina xam ba xam ndax combat bi moom moo ko moom wala maa ko moom moom moo may jox combat bi ci force. ci bëre ci xeex. lan nga ci lépp mystique moom xam naa bari leen ko ko moom. barke alxuraan tudd ngor gi wakaam yoof ñëpp dañuy dajale ëtt lébu yëpp dajale seen i arsenal mystique jox la ko nga yóbbu la xam am sa keroog. sa combat yaag boo yëmbal laa booy bii lam indi ci mystique gëj naa koo gis ci mbër mu mag. non mystique gu ñu combat boobu noonu defuñu dara ay 2 millions rek lañ def loolu dara. 2 millions barke Seexu Tijaan loolu dara du dara xam nga du dara parce que dafa am ñuy sonn ci ñun ñu am lu ñu leen jaral. teel ma micro bi may naan waxtaan. dafa am ñu sonn ci ñun. <laughs> ñu am loo xam te ñu leen ko jaral. Eh. barke Cheikhou Tidiane ñun suñu soxlaa woon 10 million pour musique dañu koy tegal ci table bi dañu 10 millions ngi nii kon su ma loolu dara rek gëmal na loolu dara mais su ma ne dama koy daan tegu ma ko ci musique foo ko teg damaa gëm ne maa ko daax a bëre te billaahi wallaahi tallaahi maa ko daax a bëre maa ko daax a xeex billaahi wallaahi tallaahi maa ko daax a xeex billaahi wallaahi tallaahi maa gën a nekk xale maa ko ëpp doole parce que dafa am nit ki boo gëmul sa bopp. sa adversaire nag su ngeen di bëree da nga bi nga xamante woo ko. xam nga wax naa sànq ne la ndaanaan la mënuma wax a wax ba du ndaanaan parce que moo ma jiitu si laam moo ma njëkk a fuuf. ñaax naa ay combat yoo xamante ne <laughs> fii mooy black and white. black mhm. mm. naa ay combat yoo xamante ne 2013 la. Mm-hmm. man 2013 dugguma si laam boobu maa ngi école maa ngi jàng. Mm-hmm. waaw mais man dama gëm ne nit soo gëmul sa bopp. lépp loo dugg doo ci avancer man sama bopp laa gëm la mu am nag ak la mu man nangul naa ko de mais dama gëm ne la ma am ak la ma man ba bis baa mooy fay. pie goos lay teg wala pied droite. pied droite la. pied waaw. yow ban pied ngay teg. droite. droite ngay teg. waaw yéen ñaar seen tànk yi kon mun naa ne day. làng day ku man sa morom duma la loolu. xeex bi dina neex trop. no foofu du neex sax bu tegoon gauche lay gën a neex. ma koy ñaan rek waaw ñaari droite xeex waaw na teg gauche rek nekk gauche droite ngay ngay waaw na na teg ma tegal ko gauche rek. te mën nga bëree deux man Philippe Falab laa man Philippe Falab laa. loolu est wóor na ci mbër man muy bëree ñaari tànk. waaw xam nga ñun ay xale lañ luñ jàng ci bëre mën nañ koo man parce que bëre lépp dañ koy tarbiyu yàgg nañ ci di jàng luñ jàng rek war nañ koo mën a man quoi parce que ay tuut tànk lañ te suñu xel neex na macha allah. moo tax may la ñun ay Philippe Falab lañ bu tegee gauche ñu teg gauche bu tegee droite ñu teg droite bu mu si teg rek ñun garaaw. maa ngi écurie olympique de Ngor nga nekk. waaw maa ngi écurie olympique parce que Boy Bawol lañ doon gis le temps mais Boy Bawol dafa mel ni la muy nekk États-Unis est que du sàq la gën a jege ka ka dugg si waat ci làmb. waaw écurie olympique gaa yaa ngi fi ñoom toujours pare ñu ngi fi ñoom fëgala bu Ngor ñu ngi fi ñoom benn melo ama ñoom birigal ñu ngi fi xama ñoom góor gi passé ñoom cité bu ngor bari nañ bari na ay fi nekk man maa ci gën a man maa ci gën a nekk mbër bu ndaw. mbër buy fayeeku boo déggee ma wax la mooy mbër boo xamante ne mu ngi fayeeku 3 millions jëm kaw. laay wax ci non wax dëgg neex yàlla jamono ji ñu toll nii nii nii nii nii écrit bi mbër buy fayeeku 3 millions amu fi. parce que bu ñu xoolee man maa fi nekk mbër buy bëri grand combat fi ñu toll nii nii nii waaw. ginnaaw ginnaaw booy. bawal booy bawal man maa fi nekk mbër boo xam te ne maa ngi bëri grand combat. bawal sàq waaw ah, laaj naa leen ko yéen yéen a ma gën a xam. Bawol bàyyi na wala bàyyiwul. <laughs> ah loolu nag des na ma wóor parce que waxuma ko direct ne ma bàyyi na en tout cas xam naa ne mu ngi États-Unis nekk si boppam waaw.